asalaamaaleykum mbokki internet bu Guédiawaye info TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar tey ñu ngi ñëw seet si koo xamante ni mën naa ni min na kër gi te kenn doot ko présenté fii ci Sénégal euh, parce que ci wàllu prêcheurs yi muy waaraatee min nañ ko ci trop muy Oustaz Modou Fall euh, moom mi nga xamante ni dañuy sawar tout le temps di toog ak moom parce que lépp loo am te tey xew na dëkk bi wala mu laal ko rek euh, moom da ciy ci anam boo am te ne ñëpp dañ ci jëlee ay ngënal loola waral tey ñu déplacé ñëw seet si ko fas ne waxtaan ak moom ci ay points yu bëri roote na li nga xamante ne moom mooy def actualité bi ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk yi na di ñu doog a tàbbi ci waxtaan bi oustaz ñu lay nuyu. waaw kay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi nuyu di site bu am solo bi nga xam ne yaakaar naa li ngeen di soxla ci information yëpp mu ngi leen koy jox di suñu situ bopp nag ñuy ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala yàlla na yàlla barkeel leen ñoom suñu ay soppe lañ suñu ay wëllëre lañ suñu ay xarit lañu yàlla boole ñu nag ñuy seq liggéey bi saa su nekk muy rafet kon nag loolu yàlla na jëm kanam. Hmm. ñu ngi nuyu mbooleem soppe boo xam ne yaa ngi bàyyi xel site bi di nuyu Haj Bekaay di ko ziyaara bu baax di nuyu. El Hadj donte la demul màkk sax waaye ñu ñu sagal ko rek tuddee ko El Hadj ñaan yal yàlla barkeel leen ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. alors oustaz ñu wax ci actualité bi muy li ko gën a lëmbee fi mu toll nii mooy tool Ousmane Sonko digganteem ak ndaw si Adji Sarr nekk masseuse ñu koy jiiñ mbiru viol ban analyse nga def ci loolu. Thiandoum loolu awma ci lu may analyser mais am naa ci conseil bu may joxe li tax awma ci lu may analyser mooy mbir bu nekkee ci loxo yoon. te pareegul kenn amul droit di ci wax mais conseil bi ma ciy joxe rek mooy juste que képp koo xam ne da ngaa am tur ci réew mi moo xam sëriñ nga moo xam oustaz nga moo xam politicien nga ak lu mën a xew moytul xale yu jigéen yi parce que xale yu jigéen yi kuñ bëgg a daaneel danañ la daaneel parce que sénégalais moo am complexe nit ku siiw gis nga naa ne kafe sax ci benn barab wala nga fay jëndee soow bu nekk wala nga fay solee gasoil bis bu nekk wala nga fay jëndee gerte caaf bis bu nekk ku siiw da ko war a moytu xam nga lu tax mooy tey càndum bu gisee kenn ku fa nekk dina ko ni pourtant oustaz u Fall xamoo ko fii lay xoola boo toogee cinq minutes fekk la fi fii lay naanee café chaque jour wala sama copain moo koy wat tout temps li gën a garaaw mooy sama copain keuse moo koy wat ku soxla sa karaw ci coiffeuse ba lay jubali nit du am benn barab ñépp xamee ko ko parce que sénégalais moo jarula wóolu surtout jamono bi nu nek nit ñi li nu gëna yakamti moy déstabiliser nit ko siiw wili Pandela yonent bi dafa am lu mu waxoon man sattara qawman sattara allah lahu yawm alqiyamah ku sutural nit ci aduna yawm alqiyam yàlla sutural la mais yakante bi pour lan la ciandum lutax sénégalais fité wo jalousie ci moromu nitam akimoko lan motax sénégalais meuna jaay ngoram mën a piéger càndum tey ñu fay ko un million mu téye xaalis bi mën koo lekk mu rees parce que bëgg naa yàq aveniru càndum càndum ñëpp yamuñu am na koo xam ne buñ ko gisee ci baar bi muy naan sàngara considéré wul kenn parce que kenn xamu ko tey oustaz Modou Fall bu duggee ci baar bi di naan sàngara journaliste bu ca njëkk jot da nga am ay vie parce que boo ko tasee ñëpp tas ko bu ñepp yamon am ñu gedd seen cër suma la ñaanaloon tay ji tay suma doon wax ak yow ciandum sama tiflit yi di dal ci sa kaw da nga am oustaz yow tamit nak boy wax del yor musuar nak sa tiflit yi mais tay bu la serign bi neewon talal tàllalal ma ñaanal la tiflit ci sa loxoy ngeen nek groupe so so li ngay ñëk wax moy man da dal na ci sëñ bi de tiflitam yépp ci sama loxoy la ko soti bu ñaari tiflit yi yamon nga am lo wax mais yamuñu nit boh xasse am ben tour bi da ngay moytu dafa am ñoo xam ni li la yàlla may neexu leen piégé la xale yu jigéen yi li nu gën a yàkkamti mooy ngay wax ak ñoom ñu lay enregistré ngay wax ak ñoom ñuy transféré say audio li ma gën a bañ càndum ñuy discuter ci message nga pare di ko estati léegi jigéen day estati sax nga ni ko par exemple macha allah wala rafet na mu capturé ko dugal ko oustaz merci yow man nee naa la rafet na ci suuf loo may siiwalee naan ma oustaz merci public. kuy wax ak ñoom ñu ngi lay enregistré fooy dugg ñu ngi monté ay caméra wax naa ko barki dem bi ma déggee coow li ñu naan maase naag du moom ak moom ak mañ leen xam nga lu xew ku dem ba mënoo bañ a maase wu demal Congo. lu tax kongo parce que congolais nekkuñu fi di yàqal kenn brésiliens yi néewuñu fi di di publier kenn dama ni la looy def ci lu bon. loy def ci lu bon moytoo ko rawati rawatina senegal man dal lima xam moy conseil la ci joxe xam nga conseil bi moy lan nit dal na moytu senegal gii ku fi moytu wul sa sa bëccëg a ngi ñew ciandum ba fi may wax ak yow amna kilifa yo xam dañuy fay traite chaque wer jigen la fay parce que mi ak sen vidéo chaque wer 500000 wala ma duggal ko nit moo man di lekk xaalis ci lu ko lewul jigéen ñi maanaam dundee ay millions ci mbaraan dundee ay millions ci ci ci ci ci teg dil dundee ay millions ci pièces yëgaluñ ko seen yaram immeuble bu ñuy tabax lépp ci pièces lañ ko amee dëkk fa te duñ ko yëgal seen yaram réew mu mel noonu soo fa dëkkee da ngay moytu ku la woo téléphone di insister ci appel bi bu ko wuyu am na ñum toogal bëgg leen a wan ni man miin naa Oustaz du Fall képp ku lay woo téléphone décroché nga commencé allo waaye ci loon ne temps yi am nga melokaan de bul wax am na ñum toogal bëgg na laa piéger. mais su ma booy wax ak nit. di déggaat sa bopp ci suuf. bul continuer def na la haut-parleur. looy vocal xam ko parce que fu nu teg sa baat ñëpp xàmmee ko ku la woo ci yenn wax yi bu ko wuyu koo xam tey tey tey mu ne la sali nangam commencé laa tëmbal ay photom bloqué ko. bul bokk groupe xamoo ñu fa nekk nit day moytu réew mii foog nga nekk sëriñ pilis oustaz pilis ministre pilis pour mën a dund euh, su ma déggee see da ngay am bopp mm-hmm. am xel yeewu nekk nandite oustaz nandite moom lañ leen dàkkantalee xam li xew piège yi du nga ba xoolal jàmbaar amu fi nag de ku yàlla dimbalee am ah. ku ci nekk def nga bis loo xam ne boo sañoon bëggoo kenn xam ko mm. mais yàllaa lay suturaal mais kuy moytu di moytu di moy gis nga boo respecté li la code de la route wax néew ma doo accident de mais li ngay accident mën naa néew. Euh, su ma déggee say kàddu ñi nga xamante ni ñi ngi naan Ousmane Sonko dafa war a xam ni moomatul boppam dafa war a xoolaat yenn fréquentation yi kàddu yooyu da nga koy firndeel. mais xam nga nit ku nekk ak gis-gisam tey am na sëriñ soo xam ni boo leen fekkee seen kër boo bëggee toog ci suuf dañ naan la toogal ci ko doo toog ci suuf. am na ñoo xam ne bu ñu dee dox soxla wuñ garde corps dafa am nit ñu yàlla bindee noonu ñu modesté noonu bëgguñu protocole bëgguñu dara am na ñu mel noonu mais daal conseil bi may jox joxuma ko ko moom Ousmane ko personnel déedéet dama ni képp ko am tur ci senegal su ma doon yow dinaa moytu parce que xale yu jigéen yi ma gis càndum dañ lay yàqal sa àdduna de ci cinq secondes lañ lay détruire yàq sa lépp yàq sa lépp parce que jëmuñu fenn am na ñoo xam soxlawuñ jëkkër ñoo raw APS taxawaalu guddeeg bëccëg amuñu kilifa piéger nit ñi ñin gën a soxla nag mooy ku am tur wala kuy wax ci diine yàkkamtiwuñ xolal am ci yow lu tuuti wala ñu buñ xamul ci yow dara nag xam nga lu ñuy wax buñ la wanee télé dañuy toog moo oustaz bii bu la ko faama jàppaloon nga xam xaw ma ko mais faama xam na ko yooyu lañuy wax bul vocalante kenn bul wax ak kenn lum la yóbboo mm-hmm. réew mi dafa am ñu fi nekk ñoo xam ni seen métier xam nga lan la yàq nit yàq gor réew mi dafa am ñoo xam ne seen tëraayu bàmmeel dana metti càndum parce que nit koo xam ni heure boo yeewoo ci ay pièces ngay dox heure booy yeewoo ci fexeel nit ngay dox jigéen yàlla ñu njëkk avertir waxoon naa leen inna na azim mu am fi mu am fi coow lu rëy ku ne di ci débat mais ba tey du dañ jigéen ay pexeem daa màgg ku mu fexeel mën na laa am moytu rek jàmbaar amu fi nag de ku yàlla dimbali moo am mais tey biteelu sàngara bi càndum mën a fotowoo am ci jàmm oustaz Modou Fall mënu koo fotowoo am ci jàmm fan yee passé cap képp laa sol cap foto cap site internet yëpp reprendre ko oustaz Modou Fall cap ñu am jot ñi di ci commentaire nag ma ni man suba est-ce que duma duma du ma du ma du ma wuti six kap tegale ko ma ni kon bu yàggee dañ may teg dof mais bu ma xamoon lu ko gën a pire dama koy def parce que man samay samay principe daa doxul ci ay commentaire rek ay man lijjantiwu ma nit ñi calculé wu ma li ñuy wax billahi alladi laa ilaha illa càndum man oustaz Modou Fall principe bi ma am mooy naay xëy samay soppe di bég ci man ma leen di wax lu leen di jariñ ki nekk ci sëy ma koy conseillé ki dul jaamu yàlla ma fexe ba muy jaamu yàlla lii mooy sama objectif ki ma bëgg ki ma bëggul calculé wu ma ko man ay commentaires yëngalu ma man xoolal <laughs> man yow càndu war nga maa xam man xam nga war nga xam man li ma man li ma yëngal bariwul man lijjantiw ma nit ku yàlla bind koo xam ne dangay soj di wér faalewu ma la man personnellement yàlla laa gëm mais bi bi mbir mi amee nga gis euh, Ousmane Sonko daal di génn wax bi nga ko seeraanee lan nga yëg. en tout cas daal li ma xam mooy moytu lay dénkaane. point boobu moom mënu wax ba ma sori ci wala ma wax ci benn virgule Ousmane Sonko Macky Sall El Hadj ah, sama yoon nekku si. li may daanalee mooy message lan la ci diine wax. dama la ni point boobu duma ci wax. bis bu lii jàllee ba nga ñëw laaj ma ci massage ma wax ci mais tey bu waxee ci massage tey par exemple ñu jël ko soit que bu dee damaa wuuteeg ko ñu jël ko collé ma ak Sonko mel ni damay dugg ci ay problème am sama yoon nekkul ci seeni problème xam nga ban problème laa nekk nii ban waayu yàlla mooy ñëw jox ma ay million ma àggale sama daara ji man loolu mooy sama yitte mais paaka ay euh, lii la def ak deful lii daal conseil laay joxe càndum ku siiw day moytu salon de massage bu fa càndum duggee génn kenn du ko bind parce que boo bindee càndum da ngay dégg yéen dangeen ñoo yëpp quoi yéen dañuy concentré wu ci yéen ngeen ñu ne ay càndum mii kuy càndum xamuñu ko tey buñ ne oustaz du Fall moo violé ku daawul jënd journal da nga ko jënd man buñ ne woon tey damaa violé am na sénégalais yoo xam ne waxuma la jënd journal bi mais danañ ko jënd ba jëndal seen waa kër ba jëndal xale bi juddu tey pour mu lire parce que am na ñoo xam ne seen mbañeel day àgg foofu ku ne nag ak ña la bañ ñi dañ lay contour ñi bañ la ñi nga bokkal métier bi sax dañ lay bañ. Hmm. am na ustaas yoo xam ne yaag ñoom yéen a bokk métier dañuy waaraate ngay waaraate mais jubluwuñ la bëgguñu la. parce que lu ne ñi ngi koy wax pour nit ñi xam leen mais ñu mel ni rek ñu taal sondeel kenn gisu leen yàllaa koy def nit ku nekk li la yàlla defal da koy sante yàlla bokk naa ci ustaas yi mujjee waxtaan ci réew mi. yàlla dimbali na ma bokk naa ci ñin gën a déglu bokk naa ci ustaas yi mujjee ñëw ci réew mi bokk naa ci ustaas yin gën a déglu ci réew mi comme naqari da ngay dem seen kër nga laaj gaz bi ñuy toggee añ ñu ne la mu ngi nii nga taal ko ba mu tàkk nga toog ci ma doog a xam ne naqaril na mais boo deful lii géew ma ñeente noo mi intéresse man samay soppe nañ bëgg rek man waxuma la man mais samay soppe rek lu ne la ñuy dégg parce que man samay waxtaan ku amul fit doo ko estati il faut nga doon yi am fit di dund na ba maayen taf ko rek ñëpp di seetaan comme naqari yaa xam parce que boo ma dee estati sax la sa oustaz bi nanga parce que li may wax arrangé wu la man ku bañ a dégg dégg doo ma déglu li may wax du yem ci say nopp sa xol bi lay binee gar nga di ko dégg te mënoo ci tus te mënoo maa teree wax li ma bëgg a wax dama koy wax xanaa yàlla jël sama ruugi hmm. waaye li feeg maa ngi dund dëggu yàlla gi laay wax kuy xëm nga xëm kuy dee nga dee kuy dund nga dund kuy bëgg nga bëgg kuy macc tàngal nga macc ko mais à part loolu dara feregew ma. oustaz oustaz islam lan la wax ci tuumaal nit. daf ko xaramal li gën a bon ci àdduna mooy tuumaal gor. lu Sénégal mën te yàlla insisté ci bi mu koy tere. mooy tuumaal ma sa moroomu gor am na ñoo xam ne sonn nañ de tuumaa tax seen lépp yàqu càndum saydatuna Aïcha lanu njëkk a tuumaal ba yàlla wàccee alquran teggi tuuma bi ne inna alladina jaau bil ifki usbatun minkum laa taxsabuuhu charran lakum tuuma yàgg na fi de képp koo gis ñu teg ko ko ci jamono bii da ciy doo ko jot mais tuuma yàgg na fi de yëkëti nit tegal ko lu bees tak lo xamni ni yëgul tinul ak a ci réew mi waye boko ko defal nit bayil xel bis bi ngay yo sa loxo ndey jor da nga wét ak yalla de wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati fardan yalla kumu bind dana la wo kenn par kenn wara régler say dossier nga wax yalla yaq gi ngay yaq nit ki sos gi ngay sosal nit ki te tegoo ko fenn ci mbagnel seede bi ngay seede ci lo xamul ci nit ki sagalante mo amalatul ci mo amatul ci réew mi ñu tuddu ciandum nga am xol bu rafet ni ciandum ku bax la xamal ko lu bon neub ko indi lu bax mën défendre sa nit ci cause yu bari yo xamni ni nekku fa joxe sa bakkan ngir nit amatul riw mi bari na ko tardel lila tardel moy soxor bon jalousie firange ñaw njort waaye cey taal taal bu yàlla taal sànni ca matt moo gën di ko jéem a fay am na ñoo xam ne ay pexe daanee lu leen parce que cinq ans ngi leen di fexeel am na koo xam ne bëggu la te ba yowmal xiyaam du la bëgg mënul ci yow tus imaginel ba mu la bañee ba fii may waxee ak yow da ngaa gën a yokk li bon mooy nit bañ la contre la ngay dellu gannaaw mais li fekk yaa ngi avancé bu ko calculer bu ko lijjanti lu tubaab bi wax les chiens aboient. la caravane passe la caravane passe. xaj yee naan mbëw mbëw oto yi di romp ku la bañ dëkk ci di la critiquer bu ko sax yëgal sa yaram parce que nit bu la bañee rek am nga victoire ci kawam parce que def nga lu ko touché lu tax mu bañ la bul nga amaat defet di yem ak moom rëcc nga ba jàll am nga lu mu amul nekk nga fu mu nekkul tekki nga lu mu tekkiwul téye nga ci sa loxo lu mu téyewul mu taxaw di la xas nga wëlbati ko di tontonteeg moom doo nit àdduna fii mu toll mooy ku la wan jàmm nga ànd ak moom ku la wan ñàkk fayda ak soxor ak bon ci saase bloqué ko effacé ko ci sa vie xool ñi la yéene jàmm nga ànd ak ñoom lëngoo ak ko yemal mbagg ku la bëgg nga bëgg ko ku la yëg nga yëg ko ku la faale nga faale ko ku la sentir nga sentir ko ku la jàppale nga jàppale ko ku la jox cër nga delloo ko ko cër fii la nekk ci poos ku la ko jox nga génnee ko ci sa poos delloo ko cër bu la joxul cër nga nangu sa cër dugal ci sa poos te dem bàyyi ko fa yàllaa yor ñëpp képp ku ko bàyyeeg sa bopp doo sonn doo jaaxle doo tiit bul dox mukk càndum ci àdduna ba jël nit jàpp ni mooy yàlla bul dox mukk ci àdduna ba gëm ni sa réussir ci loxo nit la ko yàlla teg déedéet kii moo bind ñëpp ba muy wéet ak doomu aadama kenn fekkewu ko ba mu koy jox ay rabitaay maamam ci biiru yaayam kenn fekk ko fa ba ngay judd ca hôpital ba mu lay génnee ngay judd kenn nekku fa ba mu lay xamal ni boo xiifee da ngaa war a nàmp ci sa weenu yaay pour soo génn kenn nekku fa ba ngay raam mu lay jàngal dox ngay màgg étape par étape mu ànd ak yow kenn nekku fa bi la yàlla di jox wër sa gëm kenn fekkewu ko kenn xamul ñaata jours ngay dund ku la meree lu mu lay wàññi ku la bàyyi lu mu lay wàññi ku la ku la ku la wanul kanam lu mu lay wàññi kula jappale wu lum lay wañi kala jappale won demb ak barki démb ta ken nek fa jox ko sa bop ta noppalu am na solo yow Oustaz ñu bayila nga tàggatoo contane ci yow yalla yalla defal ñepp tawfiq ci daraje Seydina Muhammad bekay yalla yalla barkel len ciandum yalla yàlla na la yàlla may jakarta bu gëna bax bi ngay dawal ndax barki demb lay dawal auto bu amul kayit ñu japp ko mu may wo nan policiers yi dañ ma japp nangam nangam pour ma ñaanal ko intervention ma ne ko nag nii la ni ma la sauvé fii noonu laa lay sauvé la police yëmbali ñom na graw graw yalla na yàlla defal ñep wa tawfiix alaykum wa rahmatullah. voilà mi ngi très cher internaute mu donon oustad Modou Fall comme ñu ko waxe mu daal min keur yi parce que ci ay waxtanam sax dañ ko jé gis ni mi nekké très à l'aise donc à travers Guédiawaye Info diko remercier ci disponibilité am parce que bari na lo xam tane tay mu nan tay bu ko woté won tay ñep daal fi daje day jox exclusivité bi nga xam tane moy mooy Info diko sante bu baax ci lolu di remercier aussi le grand technicien Bekay Koundoul et tous les fidèles internautes merci